Thiès. macha allah bul fàtte bergerie Youssou Seck dafa am Dakar am bu Thiès bi moo ñëw représenté euh, waa Thiès fii biir biir antenne. waaw waaw ah, euh, Youssou Seck fekk naa ko secteur de Dakar ak Metzo bu ñëw liggéey bu rafet. Metzo le grand champion. waaw waaw moom le recordman. auteur waaw. Ah, ok ok waaw waaw moom moo moom waaw. Ah, record euh, espoir moo ko moo ko battre auteur. Metzo waaw ñaata. 114 virgule 5 Rufisque. de passage di ko féliciter ci.

mu nekk une très exposition boo xam ni bëggoon naa xam euh, femelle yi ma fa gis yu doy waar yi fa la jógee. waaw mais femelle yii dañ ko juddulu yii dañ ko liggéey. comme dañu nekk euh, bi ñu duggee ci élevage yàgg na yàggul. boobu ba léegi ñu nekk suñu ruq di liggéey. dafa jot tuuti pour ñëw wane li ñu liggéey laaj ci appréciation ñi ci jiitu. ñu wax ñu bu baaxee ñu gën a góor góorgóorlu bu bonee tamit ñu defaraat. loolu loolu moo ñu indi foire quoi loolu mooy but bi. macha allah. en anu tout cas euh, les fi qui na may tàmbalee fii premier box à gauche gis ay espoir ak ay añel ñooñu loo boobu fu ñu jógee ñan lañ. waaw loo espoir beeg añel bi yii dañu juddoo ci bergerie bi yii ñu nekk yoo xam ne dañ leen recruter. mooy comme li ma la comme instant bi nii Il y pour un wone li ñu def ndax dañuy làqatu di liggéey te li ngay liggéey bu te ñun éleveur élevage ay ndaw lañ ci mais tamit ay jeunes éleveurs lañu en même temps nekk ñu ci ñu ci yàgg te xam-xam bi bëriwul bu ñu nekkee di liggéey ci benn ruq rek toog Il y mën nañ nekk li ñuy def baaxul génn ci foire ci ngay am chance nit ñi ñëw taxaw xool apprécier nga comparer sa bopp ak ñeneen ni pour xam ndax tu es sur la bonne voie ou pas. da nga vraiment loolu moo loolu moo li ñu tax a ñëw pour gars yi évaluer ñu ko. man de xam xam-xam bi bari na xaw ma bariwul waaye li ma fi gis moom doy na waar li ma fi gis kii ma dot nii bii nga noom mooy kan. waaw kooku mooy Rose doomu Karamoxo la yaay ji mooy doomu Cabral bi moom ci bergerie bi la juddoo waaw espoir la femelle espoir la espoir doom ji mbote bi waaw moo indaale mbote bi mbote bi 16 21 moo ko jur 16 21 doomu Salangeur la yaay ji doomu Subéru même papa même papa yi mbote bi ci bergerie bi la juddoo macha allah euh, toute blanche bi léegi bu rafet ba waaw kooku mooy Ndeye Ndoye euh, añel la dafa ñëw fii tamit euh, moom ci bergerie bi la juddoo dañ ko indi pour présenter ko añel pour ñu évaluer ko xool. moom ñaata mois. mi ngi am 10 mois. 10 mois waaw eh, demoon na sectoriel bee passé boobu la doon doog a am 9 mois yi manqué woon na tuuti mais instant bi am na 10 mois. ba ca topp. noir blanc bi sopp mooy ndebaan maa ngi ko tuddee sama benn xarit waaw waaw non noir blanc bi boobu deuxième espoir bi mooy Khadija waaw surtout Maxu la doomu Black Panther la ak Jongoma waaw beneen noir blanc bi mooy ndebaan bi ma la wax waaw boobu añel la. boobu mi am huit mois. ah añel dama leen espoir. <laughs> waaw <laughs> non sa appréciation la rek. Ah, ah, ah waaw waaw euh, ginnaaw euh, euh, rob ñuul bi. waaw waaw boobu mooy Saarata benn doomu Murid Saadix la waaw boobu dañ ko oh. ban ci waaw waaw boobu mooy Saarata waaw. robe noir mooy Ndebaan. waaw mooy Ndebaan waaw. macha allah. kon waaw kee mooy Khadija kooku femelle espoir la. waaw mooy surtout Maxu Sey la waaw moom doomu.

waaw muy un mâle boo xam ne promoteur boo xam ne am nañ ci yaakaar trop. macha allah moo tax ñu indi ko fii tamit pour évaluer ko macha allah hmm. euh, kay ci nag borom teg bu ñuul bi. waaw mooy doomu innocent bi. boobu tamit Ousmane moo ma ko jox sama benn xarit. ok Ousmane bi ma jox élément moom ma jox femelle bi. Ah. mel ni ci ginnaaw waaw borom nopp bu ñuul bi moom mooy borom nopp bu ñuul bi moom mooy Dupont. sama benn moom euh, benn doomu bàyyiwaale la mi ngi jugee Rufisque waaw beneen bi mooy Ndiaye moom mooy bi ma lay wax ni la moom maa ngi koy tudd maa ngi koy nuyu de passage papi ma nga béyti bu ñu fàtte ci yan do papi Dieye jabaram laa bu Thiès waaw mu jabaram laa ko tuddee waaw mooy Ndiaye beneen bi mooy euh, yaayu capital mooy aji ndaak waaw waaw mooy aji ndaak mooy yaayu capital bu Balla Gaye ga doom Mourid la quoi kon yaayu capital bi ma doon wër gis naa ko parce que dama dem Thiès Euh, pa Sène di ma wax ci capital di ma ni yaayam joxoon na ko ki nga xam ne mooy. Euh, Monia Paris d'or. Ah. naka ne mi ngi nii ki yaay capital moo nekk nii. waaw waaw moom da ko joxoon euh, aji ndaak ak Yaay Fall ak Yaay Fall waaw ma ñëw nag paa bi jox Aji Ndaak moo nekk nii Aji Ndaak moo jur capital moo jur capital moo jur capital macha Allah sama gàllankoor bi capital euh, yàgg nañ dem émission wax ci moom gisuñu ko woon tey rek mi ngi nii ci foire en tête bi xam naa ne ku euh, ci box euh, bergerie yu sec di nga gis Yaay capital box numéro 8 ak numéro 9 8 ak 9 moom ñaata kii am ñaata portée la am Yaay capital am na benn portée ci man après dafa nekkaat en gestation ni ah, Alif. kon ana premier portrait moom. Euh, mi ngi ko jur ak demancé moom mi ngi mi ngi kër ga. góor ak jigéen ay seex la. ay seex góor ak jigéen waaw. en tout kon euh, seexam yi ci yaayam la ko doon moom. allah te itam c'est un bon géniteur. c'est un bon géniteur waaw ah. macha allah. ay ah, béykat ah, eh, en tout cas bergerie yu sekk Dakar. Mhm. waaw waaw ñu ngi lay sant tamit si sa appréciation sec Dakar tam boobu numéro un nee naa éleveur ah. man dama doon jënd rek mais instant bi nag dafa jot pour ma commencer di wane xar yi waaw waaw boobu mooy numéro un bii numéro 2 waaw Dakar gone fee ñu émission loolu ci yow la ça sera une première kenn mosagu ko def dafa ko ñaari ñaari bergerie yu bokk nga defandoo émission bi ci même jour ah. loolu gaaw ci balaa ko gars yi di pirate gars yi ngi lay seetaan de gars yi ma pirate damay xëyee ci sekk ndekki mu taal oto bi ñu ñëw ci moomoo Diop Thiès mhm. ñu xool ñaari bergerie yi toj fa waaw incha allah loolu dinañ dinañ ci kontaan trop ah. te ñu ngi leen di xaar avec impatience pour ngeen ñëw ñu ñu yaatal gën a wone affaire yi ndax ndax euh, foire mënoo ci génne lépp am na yu ndaw a ndaw ndaw yu fa des ah. xëy yooyu gën a rafet quoi grand Youssou xaar moom moo préparé ñu nekkee ci yow añee moom. incha allah Youssou maa ngi koy nuyu de passage moom sama doomu ndey la. di ko ñaanal xéewal ak sutura ak teranga ak wér. di ko wax tamit mu xaar la. léegi yàggatul quoi incha allah. Alif instant bi war na am ay 30 mois. moom janvier lay am 3 ans. macha allah waaw janvier lay am 3 ans incha ah, allah. kontaan maa gën kontaan. waaw boo ko waxee merci beaucoup dama lay dama lay sant di la gërëm mais xar yi moom xam nga comme coppitoo bi sëñ bi la Mamadaar. sélection beeg yëpp. croisement yeeg yooyu yëpp ci la nek quoi c'est un grand éleveur. jaajëf adresse bi Thiès la. Oh. cité Lamy wetu école wetu robinet euh man ma euh, sama numéro 77 556 93 68 le numéro 76 649 71 30. 76 649 71 30. wax di sant waa Samagal TV yëpp di de waaw waaw moom foofu moom benn la moom bergerie bi benn di góorgóorlu waaw waaw ko kontaan waaw merci beaucoup ah. merci merci andi ceeb ah. merci merci macha allah waaw xar bëgg rek ah. waaw moom boo leen bëggee daal doo yëg coono moom métti na lool moom mais boo jiitalee bëgg-bëgg non neex na trop moom yaa ngi Dakar ah? kon oh, non man maa Thiès maa Thiès waaw bokk sama gaal kii ma taxaw mooy xaarim Soleil xaarim nag bu ma ko fekkee ci bergerie moom moo damay kontaan ndax xaarim booy wax booy waxtaan na moom ci xaar damay bëgg xaarim nuyu naa la ngi sama la ko yu ah. Thiès dama Dakar ni eh, dafa dafa jël ay ay ay kurkur indi ko Thiès naka de Thiès a gën doy waar waaw bergerie presque c'est la synthétise Euh, suus yu bari muy diggante tim demol baaba bi fa jaaroon moo jur tëng ba mooy lii ni yaayu capital yooyu yëpp soo ko regroupé c'est une synthèse de suus boo nar a def waaw boo xamante ni ku xam croisement xam ni croisement du théorie croisement dafa war a nekk élevage dañuy wax élevé et non pas ngay dellu ginnaaw celui qui lève pas da ngay dellu ginnaaw à force de ngay dellu ginnaaw tu deviens le dernier te moo dal éleveur yu bari mais moom dalu ko mais dama lay laaj gis na connaisseur dama xam ne yow waxtaan yàgg nañ waxtaan nga am lu bëri loo xam ci xar mais dama ñëw fii gis ay ay ay femelles yoo xam ni danga da nga leen bëgg a jaawale ay grande femelle ma gis ay añeel yu rafet ma ñëwaat ci box bi grande femelle yi ne leen dandu ma loolu mu dajale woon suuf yooyu pour yow lan la mën a génne waaw suuf yooyu li mu mën a génne mooy que tey booy tabax kër nga jël base fondement bi muy dix étages wala immeuble dina tax sookul bi dëgër tey le cas de 16 21 doomam bu ndaw bi mbote mu ngi foofu ci biir le cas de Alif mu ngi nii ci ginnaaw léegi Alif tey buñ gisee espoir mensuration espoir Alif moo ko téewoon record LCS moo ko téye ba tey nga xamante ni ci LCS ci foiru Thiès moo ko woon doon loo moo taxoon mu jënd ko te di ko def ci doomam tey jii am na xar yu nit di jënd jëndee ko tant de millions te du def benn résultat loolu

mais kon sëñ bi NMA ak le grand. c'est ak le grand. NMA ak teraanga bi NMA ak teraanga fils ak yooyu ak li nga xam muy Touareg Touareg lan moo nekkoon yaay ji muy Kaja kajaa Marie Pierre mooy base bi Marie Pierre Pata Ndiaye Pata Ndiaye Kabila ku ne xam na ni xar yooyu c'était des moutons de grande envergure da nga koy dellu si ak DP wu bi indi xar yoo xamante ne dañ naan laadum dafa dellu ginnaaw delluwul ginnaaw. système de croisement bi ak télé ci recrutement xar moo fi ne. moo fi ne moo fi ne. maa ngi dégg maa la dégg. recrutement xar surtout télé ci recrutement. xam nga lan lañ war a njëkk a def. Ah. tànn ñi ngay déglu ci xar ak ñi ngay àndal. dafa bari ñoo xamee ne coxeuru laadum da cee bari. di la dóor naan nan nga mën a xamoo Europe. nekkoo champion mosoo koo doon nga ni mën nit ki mën nga ko def champion wala mën nga ko yóbbu Europe te xamoo Europe ku miinul Europe miinoo bal nooy fubale ah, ku miinul micro miinoo caméra nooy mën a waxee. kon léegi foofu bóote bi bóote bi fan lay dellu bóote bi. bóote bi fi muy dellu mooy xar mi boo ko croisé ba mu set tu as tendance à ce que xar mi dafay am bóote mais day ànd ak mensuration yi dëng bi lii ma nga ne ak ak añal ak espoir ba weex weex daal bu weex daal non ba mu taxaw fi suba. moom laay wax di man man moo ma yëm di. waaw xoola xar moom de xar mi xale la. naafa ma ngi kër ga yoo xamante ni moom mënu leen parce que seexu bay di jur ak alif kooku bu ñëwoon fii coow day bari. waaw <laughs> xari ah, nañ kër ga de. lii dafa doy waar waaw bis boo defoon. ma ne ko damay xëyee Dakar ci Youssou mu taal otoom ñu bon see uh-huh. waaw loolu moom boo ko defe boo ko defee loolu la fekk. <laughs> Uh, man toujours maa ngi fa. toujours maa ngi fa. Youssou. Uh-huh. jàppal jour loolu loolu loolu man la. mais moom boo xoolee chaque jour dañuy gisee. man am na ci yoo xam ne bu fa xar nekkul man kenn moomu ma. mënuma tim ay kaña di ci wax sama xol atanugo mënuma tim fen diko def muy deug man mënuma lool bo yoré xar mi ñu xar mi yoru xar mi di ci mer ñu séparé wu man xar lay dund té da ngay gudd njoor rëy fu may tok du ñak ci kër go li xolal li ma la kër gu may tok bu amul njool gudd reuy man do fa ñew kenn mom ma waaw parce que ñett dafa jig ñett laadum fay njool gudd reuy fas course dafay njool gudd rëy mbërug làmb dafay njool gudd rëy ñett ñooñu mooy ñett dafa jig ñett ñett dafa jig ñett muy gudd njoor rëy mbëru laadum mbëru mbëru làmb fas course xaru laadum la jig <laughs>